allah euh, ki ñu jàkkaarloon mën naa ne kenn dootu ko présenté waa Sénégal kon dañuy euh, def lu dul nuyu ko Pathiang lay maa ngi kontaan maa ngi kontaan si yéen bu baax a baax baax franchement. ñaata ñaata trophée ngeen gagné. waaw bon soirée bi jeexagul naa doog a commencé je pense que am nañ fi trois trophées ah bon bi euh, meilleur costume la pour maîtresse de nos mariés Jalika tamit jël na meilleure actrice Golden aussi tamit voilà donc je pense que c'est c'est bien quoi. lan lan nga ressentir bi ngeen waaw bon parce que day wane ne en fait liggéey bi fay na ko et puis euh, li ci gën a important sax en fait jàpp naa li ci gën important mooy le fait que mu nekk une fait ñu dajale ñëpp ñëpp dajaloo tey mu nekk franchement une fête ñëpp dajaloo di di di di saafonte yenn acteurs yoo xamante ne xamoo leen ngeen mën a am occasion gisante et je pense que loolu moo si gën a important quoi c'est une fête waaw. mais nan nga gisee tey li nga xamante nii xew na tey. waaw non mais c'est bien gars nañ sañse nañ franchement acteurs yaa ngi fii le milieu gis traditionnel voilà daf traditionnel moi je pense que c'est bien donc en fait gën a tax suñu cinéma bi ñu koy gën a valoriser muy gën a am euh, am am am euh, yokkute sur plan yëpp et je pense que c'est ça bien parce que cinéma sénégalais actuellement mun naa ne amuñu dara lu ñuy envier yeneen dëkk yi nekk Afrique yëpp quoi maanaam fan yi moom Marodi la ñuy wax Marodi Marodi Marodi kii démissionné na kii bàyyi na kii lan nga ñu ci mën a wax. waaw mais xam nga ne ku boot bukki moom xaj mawuloon donc actuellement boo man duma si bëgg dugg trop dans les détails mais je pense expliqué nañ lépp que récemment def nañ benn publication où on a tout expliqué bon gars yi nañ si bu baax xam nga duñ si bëgg di si ñëwaat trop trop trop noonu quoi je pense que c'est pas des détails euh, euh, ay détails la li gën a important mooy ñun dañuy continuer di liggéey di servir nit ñi quoi. mais mu xaalis la. ouais non en fait je pense que nañ ko amul problème xaalis fenn amul benn problème xaalis et je pense qu'on tout expliqué donc la dañ xam juste ne que Marodi dafa nekk fii pour liggéey juste pour le public quoi waaye. Euh, lan ngay wax acteurs yi. waaw acteurs yi dama leen di wax ne que suñu ay suñu ay partenaires lañ suñu ay collaborateurs et que tey jii di man sa bopp acteur la donc je me sens acteur en même temps quoi. waaw maa ngi noos moom. naka étudier. bon ça va ça se passe on s'accroche mais métti na mais on s'accroche. nan ngay dundee étudier ak ak euh, en même temps di jouer. ah bon xaw na métti au début parce que mënu ma woon adapté wu parce que c'était la première fois mais maintenant là actuellement ça va ça maa ngi adapté wu maa ngi mën a allier les deux quoi. macha allah nan nga gisee euh, association cinéma 221. non franchement je trouve que seen initiative tey bi c'était une très belle initiative parce que xam nga milieu cinéma bi dafa vaste donc li daf ñu permettre ñun ñëpp ñu retrouver wu ñun ñëpp ñu xamante parce que tey xam naa fi ay acteurs yoo xamante ne xawma leen woon avant et franchement je trouve je salue l'initiative quoi lan ngay wax sa moroom acteur yi nga xamante ne ay xale lañ comme yow parce que souvent ñu ngi gis ay vidéo yoo xamante ne nii doy nan waar te say moroom la ñuy doon souvent euh, loolu lan nga ci yan kàddu nga ci sa bon je pense que que ce soit xale comme mag ñu ñëpp dañoo war a aar suñu bopp sam suñu bopp et je euh, bon maa ngi ñaan acteurs yi que ce soit mag wala xale ñu ñëpp ñu gëm suñu bopp ñu ñëpp xam lu ñu bëgg def xam fu ñu bëgg jëm euh, tamit euh, essayer aller de la l'avant essayer gëm suñu bopp te liggéey moo gën concentré aussi suñuy projet d'avenir moo gën yéen yi salaam kii moom kenn dootu ko présenté Sénégal Leyti yaa ngi ci jàmm. maa ngi ci jàmm sant yàlla. waaw waaw waaw ñoo ngi fi ñu ngi sant. <laughs> waaw waaw xam naa euh, du ñàkk ngeen gis ma quoi parce que ñun lii lañu am comme métier donc mooy suñu métier xëj na. buñ ñu gisee benn moment gisaatuñ ñu rek xëj na dinañ ñu gisaat daal. nan nga gisee association cinéma 2021. waaw lu ñuy def lii lu am solo la euh, mooy association cinéma 221 créé am initiative wu taxawal lu mel ni comme ni ko yeneen réew yi di defee donc euh, sargal acteurs yi sargal techniciens yi sargal équipe yi nga xamante ni ne ñooy bégal sénégalais yi di leen yee. donc lii lu am solo la parce que day tax tamit euh, ñuy def production gën ci jëmbat ful la xam ne affaire bi métier la donc bañ ko fowee surtout donc loolu daal la ñu ci jàng daal loolu la ñu ci jàng. ngay wax euh, nag sa moroomu acteurs yi. waaw lu ma leen di wax rek ne di leen fàttali ne affaire bi du fo du fo métier la parce que wax nañ ko sànq euh, mag yi dañu ñëw legeñu benn métier. gis nga si saal bi Moussa Touré Moussa Sène Absa donc ñoom ñëpp ñi ngi fi te ñoom it dafa am fu ñu jëlee cinéma bi am am ñu ñu ko jox donc kon ñi ci des di ci liggéey nañ ko setal nañ ko sellal nañ ko rafetal ñu xam ne affaire bi métier la parce que soo jógee Sénégal nga dem bitim réew euh, da ngay gis ne vraiment affaire bi métier la dañ ko dañ ko fonk dañ ko teg ci kaw fu kawe. donc c'est juste pour raconter des histoires c'est juste pour pour égayer nit yi c'est juste pour sensibiliser leen donc euh, loolu la li li li àdduna di dund loolu la cinéma di wax donc kon ñi ci nekk na ma leen di fàttali nañu ko rafetal aussi tamit di gën a wax ne euh, nañu bàyyi xel lu aspect bu aspect bu am solo mooy mag ñëpp dañuy jooytu série yi kàddu yi nay rafet solo yi nay rafet loolu duñu tàyyi di ko wax Euh, dëgg-dëgg yàgg nañ ko wax te du ñu jóg ci ko di leen ñaax di ko fàttali acteurs yiñ koy defloo ak euh, réalisateurs yi leen koy defloo nañ bàyyi wax yu ñaaw yi luñ bëgg a jouer mën nañ ko jouer loo bëgg a wax boo ko junjee nit ñi dinañ ko xam mais solu solu bu bu ñaaw bu nit mënta xool wax wax bu ñaaw boo xam ne nit rus na ko wax ci ëttu kër walla biir néeg ñu koy wax ci pénc te télé télévision pénc la àdduna la donc Sénégal yareewuñ lool lool rek la ñuy wax ne dañ ko gën a bàyyi xel te te dàq ko dindi ko ci te def yeneen affaire yeneen affaire nit yi xam comprendre jàng ci voilà loolu lañ leen di fay.